Euh, salaamaaleykum suñu mbokk internet yi nga xamante ne rek yéen a ñu tàmmoo suivre sur www point wane wanema point info ak suñu seen YouTube bii di wane wanema TV euh, ñu dikk ak rek si débrief de la semaine rek euh, bokk na si li nga xamante nii rek moom moo gën a fës rek muy fële sa Kolda si quartier bu tudd Sinthiang si département bu Médina Yoro Fula niki coow la fa amoon rek si mbirum viol si benn marabu bu tudd Mamadou Bint Diallo tolloon si juróom ñett mom nak yoon dal dina koy tek ay daan dal di koy rek eh, tech li di 10 ans de kaso fermo gannaaw bi nga xamanteni ni rek dan ko ñoon walum eh, viol bu mu nyari ci ñaari doom yu jigeenam mom momu nak di Mamadou bintu eh, Diallo jotoon na am li di ñaari soxna waye tamit yalla suñu borom dénkoon na ko aussi li nga xamanteni mom moy ak njaboto mu nekkon serigne te it nekkoon cultivateur bu mak bu nu fofu non bu nu rek si ciowal viol bi nga xamanteni mi ngi gëna jël place rek si société bi bokku na si encore fele nga xamantene ni mom moy euh, tamba Tamba dawal katu moto Jakarta tamit yon daal di ko fay tek euh, loxo mi ngi wuyo ci turu Ousseynou diara mom tamit mi ngi tollu euh, ci fanweri atak jurom ñent mom tamit dafa violé rek ki nga xamantene ni rek mom moy ben xalé bu jigen bo xamantene ni sax ñi ngi wax naan mom dafa xawa wéré di manam andul ak li di sagom xalé bi nak mi ngi tollon ci fukki atak ñaar fukki atak ñent gannaaw ba nga xamantene nek daf ko séquestré maanaam denc ko pendant une semaine rek sib néeg rek di tëddëk moom rek nii ni ki noonu rek si la benn dëkkandoom rek daal di koy soupçonné daal di xamle que ni moom kii nga xamante ni rek moom mooy nu jaara dafa am na lu muy nëbbu si biir néegam ni ki noonu si la dem rek euh, fi nga xamante ne nii rek commissariat centrale bu euh, Tamba rek daal di koy euh, dénoncé ni ki noonu rek si la yoon tamit daal di def liggéeyam rek daal di koy teg loxo ba tey bu nu desee rek si coow li mu ñu nemmee tamit 25e foire internationale de Dakar ben ciow nak nek fa tamit difa euh, lembe bokku na si ben ab xale bu jigen bu xamanteni ni dan ko bet ak ben si euh, maanaam euh, toilette yi nga xamanteni ni rek mom mo nek fofu non sa si ñi ngi xamal sax kan yi mom xale bu jigen bobu non dafa bokku rek si hôtesse yi nga xamanteni ni rek ñom ñoy hôtesse accueil si ben entreprise bo xamanteni dafa am stand fofu non sa foire waye tamit ku góor ki nga xamanteni ni rek mom la ko seqaloon ñi ngi wax kan nek na ko xamante ni kunu ragne la si manam walum euh, so business bu euh, Senegal. koku non nak euh, nit ñi ñi ngi laaj kan la wara doon si walum société ba batay rek ki nga xamante ni mom moy mustapha Niass di njitu président bu assemblée nationale gannaaw bi mu defé rek ben annonce bu am solo rek di xamle ke ni ki nekkon premier président du Senegal di Leopold Sédar Senghor mom nak ak ki di soxnam Colette Senghor ak domam Philippe Senghor daan nañ leen ben transfer fa nga xamanteni ni rek mom moy euh, Joal gannaaw ba nga xamanteni ni euh, mom momu di Moustapha Cissokho mom momu di Moustapha Niass mi ngi xamle que ni loolu dafa nekkoon volonté Léopold Sédar Senghor ndax bindon nako ci li nga xamanteni ne rek mom mo nekkoon testament bi mu fi bayyi euh, bu ñu ak yeen rek si justice li fi gëna fess rek bokku na si japp gi nga xamanteni rek yon tegaat nako loxo ki di lik gannaaw rek bi nga xamanteni defa rek dafa fessel ben combat bu mu bu mu bëggoon diggante kii di Modou Lo des arènes ak euh, Ama Baldé kii noonu nag bi mu yëkkatee euh, turu tëgg combat boobu rek si la ko yoon tamit daal di koy euh, teg loxo waaw yoon nag daal di koy teg loxo daal di koy fekk këram foofu noonu si mbuur rek après si lañ ko tamit transféré fële sa section recherche bu Thiès waaye ay sources yoo xamante ni tamit am nañ ko si ñi ngi wax ka ni moom promoteur boobu noonu rek bi nga xamante ni rek dafa annoncé combat bi ak lu toll si xaalis bu takkoo takkoo takk maanaam des centaines de millions rek si lo yoon rek daal di koy eh, tegewaat loxo eh, pour rappel nag ñi ngi wax sax que ni cour eh, suprême confirme na woon li nga xamante ni nii moom mooy décision bu cour d'appel bu Saint-Louis maanaam ci lañ tëjoon sax kii di Luc Nicolas cinq ans un avec sursis pour détention de drogue association association de malfaiteurs et complicité de tentative d'extorsion de fonds waaye Luc Nicolas aussi waroon na jox ki nga xamante ni nii rek moom mooy Bertrand Tully ak hôtel bi di Lamantin Beach lu toll 300 millions de francs CFA bataille tey rek euh, coowal mercato médiatique bi rek di gën di wéy rek ki nga xamanteni ni rek mom moy Nana Aidara nekkoon fële si la TFM mom tamit daal dinay annoncé sur sa page Facebook di xamle que ni mom nekkatul fofu non ci euh, Futurs Médias waaye te mi ngi xamle bu baax a baax tamit di sante ña nga xamante ni la fa rawati na tamit euh, plateau bi nga xamanteni ni nii ràññee woon ko fa lool muy plateau yewul bu nu dellusee rek si coowal clash bi am ci diggante Dip Ngak Blende ak ñu mel ni ñoom euh, rapport bi nga xamante ni nii rek moom mooy euh, Dip gannaaw bi mu génnee rek benn morceau rek daal di koy tuddee président FIFA mu indi nag ay coow lu baree bari ba nu sax dégg si ay baatub saaga waaye ki nga xamante ni rek moom mooy Dip gannaaw bi ñu koy invité rek si benn place moom mi ngi expliqué ni ki ni dafa amoon compte yoo xamante ne nii rek daf ko waroon bëggoon a régler mi ngi xamle aussi que nii dafa sonn encaissé na ba sonn di xamle aussi que ni nit kese la mais nekkul lo xamanteni tamit eh, nit ñi ñi ngi koy eh, rafetlu waye ba tay rek mom eh, mi ngi xamle que ni bu hip hop bi leneen lu ngi ci def rek kenn du ci wax waye bis bu duggé si waye bu defee rek li nga xamanteni rek mom moy classe classe bi ci lay nit ñi commencé rek di si intéressé wu mom momu di dip tamit mi ngi xamle que ci mi ngi xamle aussi am lu muy ñaax fan sam yi di leen wax que ni coow ci dugg ben yoon ay détail la nan ci mandu bu baaxa baaxa baax animateur bi di aba ñu ràññee ko si TFM groupe Futurs Media devance na animateur animateurs yëpp sur réseaux sociaux et manam Instagram gannaaw bi nga xamante rek agence euh, Pub Acro daal dinay publier 5 euh, euh, meilleurs animateurs 5 5 animateurs nga xamanteni ñom ñoom lañ lu ñuy suivre sur Instagram ki jël raw de gi nak di Aba No Stress mom tamit mi ngi tollu ci

nak mom moy eh, sunu président Macky Sall lu si ëpp ci manifestation yi nenañ ndak du ko fi fekk ndax waral ay gaaf wala déet lolu dese nañu leer mais dal ñi nga xamanteni ñom ñoy tapi eh, société bi ñi ngi demander aussi bëgg xam lan mo waral lu ci ëpp manifestation yi du fi fekk ki du sunu njiitu rew di eh, président Macky Sall bu ñëwee desendee ba tay rek si politique ki nga xamanteni ni rek moom mooy Anta Sarr Diacko gannaaw ba nga xamanteni ni rek dañ ko wàccee fofu non mu nekkon nekkoon njiitu délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale mu nekkoon fa lu toll ci euh, juróomi at mom tamit daal dina yëkkatu ay yëkëti ay kàddu di xamle que ni amul dara dara lo xamanteni ni rek mi ngi koy réccu ci gannaaw bi nga xamanteni ni rek mom mo nekkoon jitu fonction bobu non mi ngi aussi xamle que ni sant na bu baax ki nga xamanteni ni rek mom moy euh, président Macky Sall parce que mom ci bopam mi ngi xamle que ni nekkuloon benn jigéen bi nga xamanteni ni mo nekk Sénégal ndax aussi buñu fàttali ko tamit nekkoon na fi li nga xamante ni rek moom mooy euh, ministre de la femme Euh, ba tey rek euh, mag kii di suñu njitu rew rek di président Macky Sall gannaaw bi nga xamante nek dafa euh, recevoir ki nga xamante ne rek moom moo nekkoon directeur général de Fiel de fiel stone une société conseillère financière de la commerce économique des Nations Unies mom mi nga xamlé kani li nga xamante ni rek mooy courant bi daan ko wañi fi ci suñu rew di Sénégal. Khalifa Sall gannaaw ba nga xamante ni rek yoon daal dina koy gracier mom tamit nak daal dinay séddale loolee somme bi nga xamanteni ni rek dañ ko récolté won rek ngir caution mu tolon nak ci onze millions ak quelque mom Khalifa Sall nak dal dina koy euh, sédélé ñi nga xamanteni ni ñoy association des femmes vivant avec un handicap ak tout pour l'enfant ak pépinière bu Nianing ak euh, ñi di empire des enfants ak hôpital Arbel Royer ak aussi euh, ñi nga xamanteni ni ñoy association des femmes de Grand Yoff euh, fi may daanee léegi rek euh, si politique euh, nouvelle bu neex biir PDS député bi di wuyoo si turu Toussaint euh, Manga daal dinay annoncé ni dafay takk soxna rek euh, ni ki samedi bi ñuy dugg rek moom sax mi ngi xamle ka nii dafa euh, sonn si mbirum célibataire bi te it mi ngi doon xamle ka ni dafa sonn si sàngoo li nga xamante ni moom mooy mbàjjam gannaaw rek ba nga xamante ni rek dafa gis rek benn jigéen rek bu jàmb tamaateem rek moom daal dinay annoncé ka nii dafay takk soxna gannaaw rek bi nga xamante ni rek coowal célibataire li mi ngi lëmbee biir assemblée nationale laaj bi nag mooy est-ce moomu noonu xoolul si jigéen ñooñu nga xamante ne nii rek ñoom ñoo nekk biir assemblée ndax foofu la xoolam déet loolu daan si dikk ak yéen rek quant à maa ngi leen di jox rendez-vous si yeneen nouvelle d'ici la portez-vous bien